salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes site d'information sans limites TV c'est toujours un plaisir de ànd ak yéen ci seen i différentes émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gisee ak la rencontre avec dellusiwaat nañ di kontaan ci ñëpp ñi nga xamante ni voilà ñu ñi ñu siy topp di ñu siy gunge alors tey ñu am mbégte wu euh, dalal ki nga xamante ni moom mooy ab du jaañ Abdou Diagne euh, ñu koy faral di woowee Lippi ah, nekk fële nga xamante ne moom mooy commune Diamaguène Sicap Mbao euh, Aynou Madi alors moom nag yor foofu cellule euh, bu Pastef ah, moom moo ko sax jiite wax naa ko léegi Aynou Madi commune Diamaguène Sicap Mbao bi nga xamante ne Alioune Badara Bèye moom moo ko daal di jiite moom nag lii waral ñu daal di koy invité fii war ko waxtaanam au delà de Pastef bi mu bokk moom bokkoon na ci ñuy woowee détenu politique daanaka ñu xawantee la jàpp sax laa laa ko mën a tuddee le 29 mai lañu ko jàppoon fële ca Caaroy bala ñu sori ci waxtaan bi dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ko waa Sans Limites TV ñëw ci yaatal bi maa ngi lay nuyu euh, Lippi maa ngi lay ziar. Abdou maa ngi lay ziar maa ngi nuyu Sénégal. Mm-hmm. maa ngi nuyu les internautes de Sans Limites mm-hmm. TV di nuyu àdduna nuyu diaspora di nuyu sama waa gox jàmm gën si Mbaaw nuyu sama cellule bi en tant que coordonnateur Pastef Ndiawar Diagne ay nomades yi. Mm-hmm. di nuyu suñu njiit euh, Aline Badara yi suñu maire. Mm-hmm. di nuyu sama responsable yi Matar Fall Rougui mm-hmm. waaw. voilà alors euh, bon arrestation yi dañu doon faral di dégg ñi dañu lay fekk nga takk bracelet ñii dañu leen di ñu fekk ci ay groupe WhatsApp ñu kii naam si présentation wax nga ni Pastef nga bokk cellule bi yow yaa ko gérer foofu donc. lan moo indi sa arrestation moment boobu noonu lan moo ko andi woon exactement. waaw en fait euh, man sama arrestation lu ko indi man d'ailleurs sama kër lañ ma jàppee. nga fekk sa kër. dañ ma fekk sa kër parce que xam naa ni bon yàgg nañ xam ni man mii moom dama sori ci affaire bi loolu sax te dama mën a convaincre. Mm-hmm. te dama doon waxtaan ak booy yi les jeunes. Mm-hmm. surtout ñu nekk sama koñ étudiants yi genre même ñu jàngul si di leen wax ci projet bi booy yi di ma déggal. parce que dama doon wax dañ may dégg. ma wax ñu dégg la xawul yomb. mais man yàlla may na ma su ma waxee booy rek dinañ dégg daal. waaw léegi nag par la suite bon ñu amoon benn groupe whatsapp boo xam ne dañ ko créé woon pour cellule bi. te li ko waraloon sax canal nettoyage yi yooyu. Mm-hmm. bu ñu bëggee nettoyer. ñu ñu def appel. Mm-hmm. ci groupe bi boo yi génn ñu nettoyé ko parce que mm-hmm. canaux yi foofu. Euh, suuf la quoi. Mm-hmm. tu pour nettoyer ko pour mu am entretien bu baax foog ñu ciy taxaw ñun nga baal ma sax si nettoyer euh, nettoyage bi mm. xam naa du ñàkk sama réalisateur après dinañ ci ñëw mm. parce que ñu ngi gis ni euh, voilà dañu lancé journée yi nga xam ne dañuy defar dëkk bi gis nañu mm. également ngeen ci def liggéey bu am solo xam naa du ñàkk euh, loolu dinañ ci ñëw léegi bu weesoo nettoyer bi mm-hmm. yow da bokk si groupe whatsapp bi mm-hmm. yow yaa ko sax diriger d'ailleurs ndax cellule bi yaay njiit mm-hmm. waaw léegi arrestation bi laa lay wax. Mm-hmm. ci groupe bi la jógee quoi. parce ah, que niñ ma arrêté. à mm-hmm. partir du groupe bi la commencé. parce ah, que dañu jàpp sama benn booy. si la mbay waaw booy bu jàmbaare ah. Mm-hmm. ci cellule bi liggéeykat. foofu lay liggéey Kër masaar bon daf doon liggéey romb noonu policiers yi rek. Euh, fekk ci usine gaz bi la nekk jaay na gaz sax policiers yi déjà bañ tooñante mu romb. ni mu rombee noonu rek mu romb ak gars yi ni ñu équipé noonu rek mu romb mu ni ay temps yoo xam nga rek manifestation bëri na mu romb ni gars yi équipé woo ak seen armes yi genre taxaw mu rek ni ku taal fii gars yi tey bu la jàppee di nga am problème de xam nga dox ànd ak benn copain am quoi benn policier mi ngi koy dégg ci ni ko eh, yow ngay taal mu ne ko noo taal man damaa yor sax luy nduroog taal non dama non ku taal fii gars yi duñ la jàppee di nga am problème léegi benn mu àndaw nag benn xaritam xaritam bi daw quoi mais moom it xam naa ni moom jàpp na deful dara quoi. Mm, te deful dara effectivement. léegi dawul ñu visité ko saak bi mu yoroon visité gis ñu dara luy mandarga ni day taal wala day def dara ñu jël portable bi. Mm. moom portable am verrouillé wu verrouillé wu ko am verrouillé wu ko def ci dara loo xam ni graaw na ñu xool xool xool xool gis ñu dara léegi bi ñu xoolee euh, gis groupe bi gis Pastef Njawar Diagne. Mm-hmm. vu que man may initiateur bi maa ubbi groupe bi. Mm-hmm. ñu jàpp ko yóbbu xam nga mu ngi doon jàppanteek sax policier kii euh, gendarme bi ko jàpp foofu noonu jàppante yaam ba mu yóbbu ko xam nga dóor nañ ko sax xaw na bi ma ñëwee fekk ko foofu sax maa ngi gis bopp bi dafa xaw a toj ak yooyu léegi par la suite lañ toog ba guddi gi noonu boobu maa ngi jógee cité kër góor gi boobu Sonko mi ngi jógee Vélingara. Mm-hmm. di ñëw am na sax benn émission bu ma jot a développé loolu. bi mu jógee Vélingara di ñëw mooy bi ñu ko jëlee bi ñu ko extraire. Vélingara di ko indi. Dakar waaw ci guddi gi. Mm-hmm. léegi foofu laa jóge woon parce que F24 amoon na benn visite. pour trois yi pour seeti Ousmane ko këram. c' est que ma lancé benn message ci groupe bi aussi ma ni comme suba férié la jour boobu benn lundi la férié la léegi dama bëggoon ñu dem. ci visite courtoisie bi kër Ousmane Sonko bi ñu lancé ku bëgg a dem nag bon nga ñëw ñu dem mais man moom damay dem ma lancé loolu. ci donc yow sa message bi nga dugal ci groupe WhatsApp bi. moom nga indil non pas pas message bi sax. Ah, d'accord damay développé pour wax la. jàpp bi. Mhm. après bi bi ma demee foofu ci guddi gi. après bi ma ñibbisee. Mhm. bi ma ñibbisee vers euh, deux heures trois heures. laa gis rek euh, gendarmerie Kër Massar. fëgg bunt bi. sa gaal bi waaw këng këng këng këng bi ñu fëggee noonu boobu maa ngi tëdd di waxtaan ak soxna bi di seetaan discours bi parce que boobu seetaanu ma ko quoi. léegi euh, bi ma koy seetaan noonu ñu fëgg bi ñu fëggee ma ni caane sama soxna caane lu tudd ko ma ni ko kan moo war a fëgg heure bi këng këng këng Abdou Diagne li pii génnal génnal génnal fii. ma ne mais comment ça xanaa sama gars yi ñoo may mbalak xam foofu xam gars ak foofu noonu jotaay ak yooyu léegi sama rakk bi ubbi. bi mu ubbee c'est la police ñëw fëgg bunt bi xam nga di xëcc ma ne kookal la ñu ne ma c'est la police ubbil ubbil ubbil bon sama rak bi ne ma Abdou ubbil ubbil rek ma ne ko noonu man daw ma sax parce que gisuma lu tax may daw ko parce que j'ai rien fait ma ñëw tranquillement sol sama yére après wax soxna si ne ko calme calme toi nekkal jàmm parce que sama doom yi ñu ngi tëdd heure boobu bu ñu yeewu woon xam nga. Ah, affaire bi mën na leen jàpp sa nit aussi boo koy jël si koo xam ni du bandi du sàcc xam nga dëkk na ci koñ biñ koy bi biñ may jàpp sax gardien koñ bi mhm. ñëw na ba si ñoom ne leen fii de kuy def la woon dëkk bu ngeen teeyee rek def nànk dina ñëw tranquillement mais dañ koo xëcc sànni fële waaw mhm. léegi ma génn ñu ne ma jël sa portable jël ma jël sama portable dem après ma génn man leen yéen mais lan moo xew ñu ne ma oh, yéen ay taal dëkk yéen ay ma ne man taal comment mais yéen xanaa balaa ngeen di ñëw kër jàmbur mais yonnee leen convocation man je suis un citoyen si dëkk bi laa dëkk et je connais xanaa du ngeen ma yónnee convocation may daw wala may bañ a ñëw mais nii ngeen di ñëwee mel ni kuy jël si benn criminel wala koo xam ni dafa def lu bon jaru ko woon xam nga après ñu dal ñu génn ñu jiital ma mais bi ma génnee maa ngi gis euh, ñi ngi baare koñ bi yëpp plus de vingt auto ban ban ban ban la deux heures trois heures du matin. du matin waaw. ñu ñu encercler koñ bi yëpp. ñu encercler encercler koñ bi yëpp dañ ko encercler côté yëpp. Mm-hmm. waaw euh, ma génn euh, topp leen ñu dem ñu dem di dem di dem ñu wërale ma koñ bi genre. benn oto la woon def benn non ëpp na benn oto mat na vingt. bien oto pour yow kese côté yëpp côté après ñu jàppoon suma benn waaye tamit ku bokkoon ci groupe bi Maodo mm-hmm. Maodo Diop. Maodo Diop ma fekk ko ñu jàpp bu ñëw ni ma Abdoulaye la ma ne ko ah, man de franchement xamaguma quoi après ñu dugal ñu ci oto bi yóbbu ñu li ñu yóbboo ñu dawal oto bi dawal ba poste Thiaroye am na beneen oto ñu wàcce ñu. Mm-hmm. vu que bi ñu duggee rek euh, maa ngi gis euh, mm-hmm. am na ñaari euh, ñaari comment il s'appelle encore ñaari kii. GIGN euh, yoo xam ne yu jigéen lañ quoi ay ah. jigéen ay agent yu jigéen quoi maa ngi dugg fekk bàyyi laat laa sol nag quoi mm. maa ngi dugg rek mais ñaar ñaari gel yi ñu ngi yëngal seen bopp quoi di def nii ma xam ni ñii ñoom xam nañ li xew quoi. elles sont gênées en fait. waaw elles sont gênées. elles parce que ñi nga xam ne lii nii ñii yoru seen kanam sax yorul liñ leen di jiiñ nii mm. après ñu toog fekk avant may dugg ñoom rek fa nekk bi ma duggee dañ ñu ma toogal. après yeneen garde bi ñëw ñu ni ma jugal après ma jug toog ñu mënatu ne ci am na benn tige bu nekk ci kaw noonu après ñu dem oto bi ñu ma dugal ak Maodo nag bokkul après ñu dem dem ba gendarmerie Kër masaar par la suite bi ñu eggee am na yeneen agents yu nekk foofu mm. foofu moom xam naa ni ñooñu moom ce sont pas des parce que bi ñu duggee rek xam naa ñooñu la ñuy dugal ci biir gendarmerie police yi genre nervi je sais pas. ñoom la ñuy utiliser pour ñuy jéem a dóor gars yi ak yooyu. parce que bi ma duggee noonu rek ñaari gars la quoi ñu ñëw no yéen yéen ay saaga quoi yéen ay kii nangam xam nga saaga taal dëkk bi man ko mais yéen est ce que xam ngeen ma bay saaga nii mu saaga moom ma delloo ko ko mu dóor ma esquivé ko rek fayu après fii toj léegi beneen gaayan bi tam dem woote ni ma woote gaayan kii c'est un élément ah te mu woote yeneen gaa lu mat douze personnes ak sama yeneen booy yi sekkuñu foofu ñuy jàppante jàppante jàppante ba mujj dama sës ci angle bi quoi waaw mënaluñ ma dara mënuñu laal sama kanam moom man côté boobu moom franchement yàlla may na ma ci jàng naa arts martiaux et tout mm-hmm. mënuñu ma touché foofu léegi dañ jël lii fi di ko dóor sama genou yi sama genou yi di dóor di dóor di dóor sama tànk di dóor bu mujj gi. dama dañ ma bi ñu lay dóor. noo mënate wuñ ma mais dañ ma sës dañu bari. Mm-hmm. te man dama doon fexe bu laal suma kanam. sama tànk yi moom xam naa ni moom bon suñ fa dóoree mun naa gaañu mais mun naa ko gérer. léegi par la suite. ni ñuy dóoree noonu ñu dóor ma dóor dóor ba sama tànk yi bon mënatul taxaw quoi. si la seen benn chef génnee. ñëwee ni leen yéen lan ngeen di def nii. au moment où tamit ñi ngi dóor sama yeneen gars yi quoi. lan ngeen di def nii. ñu war leen doon leen leen doon di dóor ay arrêté ñu génn dem. bon après ñu toog foofu ñu toog ba benn heure bi ñu yóbbu ñu ci cellules yi foofu si yeneen kii yi quoi ñu toog après jël suñu filiation et tout léegi par la suite euh, la sama avocat ñëw avocat Pastef jël na jël na def na constat jël foto yi ak yooyu sama tànk bi néewi néew bi ak genou bi yëpp ba fu mu nekk nii sax genou weer laay sol nii sax pour mën a dox carrément waaw parce que su may entraîné sax su may daw damay sentir ne affaire wérégul léegi jël photo yi ak tout et tout bi ñu demee après major Kandji moo fa nekkoon ko bi mu ñëwee expliqué naa ko ko ma ne ko yow sa gars yi de dañ doon ñëw di dóoraate te franchement nit ki balaa nga koy dóor da ngay xam loo def bon mu ni ma dóor dóor amul fii ma ne ko lii nii defuma ko sama bopp bi may ñëw fii. Mhm. xanaa duma jël di neewil sama tànk wala sama genou bi te yow maa ngi soox mu ne waa baax na après loolu dinañ xool nu ñuy def ba gérer ko ko après muy enquête di ma laaj affaire yooyu mooy laaj xam nga questionné ma ne ma yow nee nañ ne danga taal benn bis Kër Massar ak euh, genre benn Liberté 5. lañ bi quoi. waaw bi waaw ci PV bi affaire yooyu ma ni ko non franchement man jour boo jour manifestation sax génn ma jour bi ma génn mooy jour bi Sonko demee fee. te ki ngeen ma jàppal bokkuñu woon fu ñu nekk te jour boo amul manifestation comment se fait-il que man 3 mois ci ginnaaw gëj naa Kër Massar naka laay taalee bis foofu. te Liberté 5 géej naa fa du sama ale sax xanaa des fois ma am fa business ma dem foofu. Mhm. waaw kon nan laay taalee ñaari bis. te mhm. aussi man koo xam ni day sàmm ay canaux. di nettoyer ay kano di bàyyi ay école bu am ay ñax ay tout mais comment ça fait-il que ngay taal ay bis loolu c'est kenn c'est contradictoire mhm. ay biens publique man bu ma doon manifester sax boobu façon duma ko manifester je suis pas contre euh, au gens qui le parce que seen colère foofu la toll. parce que France rek amoon na manifestation mm-hmm. gis nga li fa xew xewul Sénégal mm-hmm. donc euh, man beneen façon laay manifester mm-hmm. waaw sama droit sama yoon moom ma ko may waaw léegi bi ñu demee foofu ñu def enquête et mu ni ma lii nga def ma ne ko man lii mënuma ko signer parce que defuma ko mënuma ko signer mu ne ma man moom dama lay charger lu ma neex yow yaay weddi man quoi ah, alles y parce que man nee naa ko jàng naa j'ai fait les jàng naa xam naa samay droit xam naa aussi li ma yoon may lii duma ko signer waaw mu ne waa d'ailleurs donc duñ mën a changer PV yi affaire yooyu par la suite si la sa mbooy bi laaj ma affaire yooyu ne ko liiral PV bi mën nga liir nga xool li nga def nga nga signé ko li nga deful bu ko signé hmm. kooku sa droit la hmm. waaw mu ne waa d'accord kon euh, gendarmerie Kër Massar waaw Kër Massar Kër Massar hmm. d'accord euh, ñaata fan ngeen fa def avant déferment nañ fa à peu près si je me trompe def nañ fa euh, huit jours doo a siggi huit pour gars yi waaw gis bu baax voilà allez waaw Mhm. def nañ fa huit jour def nañ fa huit parce que dañu njëkk a dem. poli kii euh, tribunal Tëngéej la ñu njëkk a yóbbu. Mhm. ñu defal ñu retour parquet. après le lendemain. fekk foofu rek defoon nañ fa weekend bi. le lendemain ñu yóbbu ñu euh, dakaar ñu yóbbu ñu Dakar bon. ci yoon bi rek am na benn euh, policier mu ngi naan booy mënoon ngeen signé mais bu ngeen signé woon sax procureur bu ngeen demee mu bàyyi leen seen wax yooyu rek. Ah, gëmuñu li ngay wax man ko non mais <laughs> mais loo deful doo ko signé. même bu mu ñuy bàyyi sax nañu bàyyi ci loo xam ni dëgg la man lu ma deful du ma ko signé yaa rey nit reyoo nit ñu bëgg ko signé loo léegi boo demee eh, ci baro bi ñu lay àtte léegi yow nga bëgg a weddi loo signé juge la yow lii laa ko signé am nga xel waaw man ko allez yi nañ dem ñu dem bi ñu demee ba foofu ñett lañu woon bon bi ñu demee foofu euh, Maodo dañ ko bàyyi su Maodo suñ benn ñett lañ quoi. suñ benn benn élément bi Maodo Diop. Maodo Diop waaw léegi maag mbay ñu yéeg ci kaw. ñu dem toog juge d'instruction bi madame Sakho waaw juge bu kii la ko juge bu crédible la nag. Mhm. damay wax dëgg rek te yàlla tax parce que juge yëpp tam aussi yemuñu. d'accord na ma xool xam nga li ma def mu bind ko mu ni ma man bon li nga def li nga li nga li nga wax rek laay bind. Mhm. parce que ñun aussi police daf ñuy indil dinañ xool lu raisonnable ak lu raisonnable loolu. d'accord ma ne ko waaw ma ne ko man moom li ma def moom ñeme naa ko assumer. parce que laa bokk te nëbbuma ko te dama bokk yor cellule canalisation yi buñ koy nettoyer moo waral groupe bi ak sunu cellule bi. waaw mu ni ma dag ndax da nga xam benn ku nekk Pastef ku mag a mag a mag ma ni ko non Pastef ki ma fa xam mooy sunu meer xam naa tam ñu nekk euh, sama koñ ñoo xam Pastef lañ bokk mais boobu mi ngi may bëgg dugal ndax da nga jege Ousmane Sonko genre affaire yooyu xam nga te Sonko franchement benn yoon ñaari yoon lañ gisante te li ñu wax matul 20 mooy bi muy ñëw sama koñ. Mm. nuyu naa ko ñu wax parce que itinéraire bi mu bëggoon jaar man maa ko détourné dafa bëggoon jubal te bu jubaloon fële day favorable ak maire bi nga xam ne bokkul Pastef. Mm-hmm. xam nga politique moom da ngay ki bàyyi jëm sa gox. Mm-hmm. léegi man maa changé itinéraire bi Cheikh Aliou Badara Bey. Mm-hmm. ni ko jaaral ci tëli karo bi parce que ñun fii lañ moom. waaw moom moomu ñëwoon côté bee fekk côté bee maire bële la doon xëccool mbay seen boobu mbaw moo fa nekkoon yeewee askan bi mhm. waaw mbaw maa ngi koy nuyu de passage sama sama grand la sama xarit la mhm. léegi mu jaar noonu ñun fi ñu concerné woon laa bëggoon Sonko jaar fa quoi waaw après bon foofu doon sama fief nag mhm. waaw gaa <laughs> ah, yi génn d'accord bu gaa yi génn gaa yi génn politique ah. alors léegi pour ñu pour ñu gën a avancer un peu parce que li ñu war a waxtaan xaw na bëri quand même pour ñu mm. pour un peu mm. gagner du temps mm. léegi ban chambre lañ la yóbboon par exemple Rebeuss nga nekkoon wala waaw Rebeuss laa nekkoon chambre 2 chambre 2 laa nekkoon mais xamoon nga nombre de personnes bu fa nekkoon si si xamoon naa ko parce que man chef de chambre bi sax bëggoon na ma jël comme par exemple euh, ma nekk homme de chambre bi comme gars yi nga xam ne ñooy teew ak euh, garde bi buy buy buy buy buy buy buy def appel mm-hmm. yow yaa koy assister bu juumee nga ni ko fi kii nangam nangam tu vois dafa dem infirmerie genre man nag boobu loolu intéressé wu ma woon quoi parce que yaakaaroon naa ne du fa diire du fa jël temps. ñaata def. naa fa neuf mois. waaw parce que chef de chambre bi ma na ma tooñ yéen bis bu mag yi paree ci yéen di ngeen xam ne lépp dëgg la man ko booy man damay ñibbi léegi j'ai rien mu ne ma waaw ñu tooñante xam nga waxtaan Pam maa ngi koy nuyu de passage waaw non def naa six mois paquetage mm. six mois parce que bi may dugg rek sama tànk yi dafa néew woon quoi parce que chef de chambre mi ngi koy wax mu ne ma mais moo la def lii. Mm-hmm. ah buum yi de ñoom laa doon jàppanteel ñoo ma doon dóor nii ci tànk ba mu néewi nii mu ne ma mais xanaa da ngaa def lu rëy man ko non man sama kër lañ ma jàppee. Mm-hmm. sama kër lañ ma jàppee après bon mu ne ma léegi garaawul guddi gi ñuy tëdd. mais 100 moom si autre chose mm-hmm. nit ku génn day rafetal rek mais 100 moom kaso boo xam ni mm-hmm. euh, boo fa yóbbu nit rek xoolaat ko quoi parce que xool ko ci sa bopp parce que euh, situation yi jéggi na dayoo parce que néeg boo xam ne 6 mètres carrés ou cinq nga tëral fa 150 personnes ñun dañ doon dem ba 150 personnes. 150 ah personnes. Mm-hmm. waaw paquetage bi nii lay def dañuy kolente suñu loxo yi comme nga jël sa loxo def noonu loolu tëddee nañ ko ay weeri weer. Mhm, foofu waaw. Mhm. et puis et puis ndax yenn tawar yi doon dal yenn parce que jël nañ fi ñu bëri ñu doon dal seen yaram yi doon dem ay putantaan. si si si kii ndax yooyu daloon na. si si si waaw waaw waaw pour ne pas dal na ma moom franchement xasan xasan ni mais dem naa ba am ay huit mois neuf mooy doog dal. waaw que fi mu doon tëdd dama ko changé. je sais pas nag foofu la xawma mhm. xasan xasan yi sonaloon na ma trop. waaw dama doon sangu ba pare mais damay wokkatu wokkatu parce que da doon neex wokk bi. léegi nag dangay ngay gën a ah, gën a gën foncé du dagg doo ci bàyyi xel mujj gi maa ngi sant sama soxna au passage mm-hmm. caane wax dëgg yàlla jàmbaar la mm-hmm. mujj gi daf ma doon dugalal ay garab jaarale ko infirmerie bi loolu moo doon tax sax euh, yu bëri wàññeeku mais foofu moom loolu da doon am mm-hmm. te man moom xam nga euh, bëgguma lu salte samay hygiène de vie dama koy toppatoo bu baax mais 100 moo nekk foo xam ni wax dëgg yàlla Euh, nañ ko xoolaat. nañ ko defaraat. na jotoo dund foofu ay xeex wala coow wala torture wala ñu jàpp yenn booy diggante cent bi ñuy yóbbu torture bi gisoo fa ay. booy non gis naa nag gis naa nag euh, xeex am na fa mais man musuñu ma torturer foofu parce que nit ki moom am na comportement booy yor gars yi dañ la respecté te man dama respecté sama bopp lépp lu ñuy tere foofu doon naa ko éviter bon dama doon daw lu bari. parce que mais torture moom fële laa ko dundee gendarme mais gis naa tam kuñ fa torturer parce que sunu benn euh, élément Pastef Saliou Diop. am na problème amoon na problème ci biir chambre bi ak kenn mais bi mu génnee euh, chef Mangane ku ñuy wax chef Mangane benn garde la kooku war na changer comportement am envers les détenus parce que. ni waaw il est te ni muy def gars yi baaxul. Mm. te bu yàggee rek frustration leneen mën na ko dal. te gars yi foofu ragaluñ. foofu ku fa nekk moom franchement da ngay da ngay da sës quoi dootoo ragal waaw te moom mënulul dara gars bu ko gars yi buy dóor gars yi bàyyi ko rek am na lu tax am na respect tenue bi genre jour boobu da doon xeex ak Saliou dóor na ko ba simmi loxoom mais bon te Saliou fayiwul mais caméra yi mi ngi ko doon jël ba Saliou bi muy génn sax dañu bànd loxo bi et directeur bi moo nekk directeur bu baax calmé xam nga nekk directeur bu bu jàmbaare bu mun liggéey wax ak booy yi booy yi calmé wu. xam nga ñu delluwaat ci liggéey bi wax leen yéen defu leen dara xëy na bon lii luy jeex la et mu nekk koo xam ne ku ñu respecté te maa ngi lancé appel aussi bon le président mon excellence waa monsieur Diomaye fay directeur 100 mètres monsieur Seck na ko dooleel parce que kooku ku bëgg Sénégal la parce que bi mu ñëwee ci kaso bi am na lu mu fa changé lu bare bare bare parce que waaw parce que ñun sangu bi foofu dafa xawoon difficile waaw ndox bi trois heures di matin lay ñëw jëm 5 heures te da ngay dem ba jàppanteeg nelaw rang la dañuy toppante rang bi dañ lay yee buñ la yeeyee boo jugul sangu dootoo sangu te boobu nelaw yi dafa jafe pour nga nelaw benn temps bu ndaw ngay nelaw ñu yee la mhm. léegi da ngay dagg say nelaw après nga dem sangu ji mhm. sinon nga jël benn bidon 10 litres mhm. nga root ko denc ko. après nga mën a sangu euh, nga baal ma dañuy dañuy gis souvent sax ñu fi am dañu fa jógee souvent dañuy am problème bon. ñii wér yaram bi ñii xel bi ñii dara dañu gis suñu hmm. euh, benn frère benn compatriote Azoura hmm. dañu gis bi muy dem c'est vrai que bi muy dem euh, physiquement lépp il était bon lépp hmm. dara jotu ko woon bi muy génn muy génnaa la beeke mais dañu gis communication dafa xaw a parfois dafa xaw a waar si ñenn ñi ni ñu koy déggee bi ñu gis ko live mu saaga directement Bassirou Diomaye Faye c'est vrai que jéggalu na mais comportement Azoura en tant que patriote du ñàkk xam nga ko ban ban nga sëñ waaw Azoura sama waay la nekkoon nañ foofu xamante nañ franchement xamante nañ daan nañ waxtaan di partage et mais ci biir kaso bi wax franchement parler mel woon noonu il était calme xam nga sage xam nga ñuy waxtaan bu ñu waxtaanee nii tuuti mu ni ma yow malfaiteur nga. noppil jarul ngay wax da ngay ñibbi wala ñibbi woo. Mm-hmm. waaw di di ma tooñ nii. Mm-hmm. man ko non yow ku la xool rek xam ne yow maak yow kat moo ci ndiru malfaiteur. Mm-hmm. <laughs> affaire yooyu mais bon. moom def nañ émission mais mm. Azoura dafa mm. am lu muy dégager dafa am lu mu bëgg génne ci xolom na ko mm. nit ñi comprendre. Mm-hmm. nekkul nit ku soxor nekkul nit ku bon. Mm-hmm. parce que ñu bëri woon nañ ma ni ma sa waa ji sa waa ji sa waa ji xam nga après par la suite tam bon woo naa ko. ne ko Azou xam nga vidéo boobu ah. maa ngi koy gis seetaan naa ko tam mhm. nekkul saaga moom rafetul mhm. nekkul lu lu lu baax mhm. te nit waru ko def mais bon video bi intention Azoura nekkul woon dafa bëgg a saaga directement parce que gaan bi ni mu ko waxee moom dafa bëgg a won ni moom réyalul dara daal réyalul dara te saaga am na ñoo xam ni dañ koy def nii garaaw luñ ko jëlee ko intention bu bon mais nekkul lu rafet bu ma ko wotee nee naa ko Azoura nekkatoo opposant xeexatoo pour yor réew xeex nga bañ jox la réew changer sa comportement envers la population parce que jomaay bii tey yow kese moomuloo ko da ko bokk ak yeneen sénégalais yi que soit nga bokk APR nga bokk beneen parti ñun ñëpp ñoo ko bokk te respecté ko nga changer sa waxin par rapport ak ñooñu muy jomaay muy Ousmane Sonko muy beneen ministre noonu parce que wax di saaga dafa xaw rafet woo naa ko yedd ko ni ko excusé wul devant tout le peuple sénégalais. Mhm. nga wax ni da nga juum nit mooy juum. Mhm. waaw man mii di wax rek mun naa juum. waaw nit ku baax la nit ku oyof la. dafa def erreur mais est-ce que est-ce que est-ce que jàppoon ni a wut benn psychiatre wala dara benn koo xam xelam dafa màcc jëm ci ñu ko mën ko xelal psychologiquement dafa des. non ñu assister ko ko en fait. waaw non man loolu aussi ignoré wu ko mais man Azoura bi ma xam pour man franchement dara jotu ko parce que li ñu ko def moo ko metti mm-hmm. loolu lay dégager di ko génne xam nga am na ñu am. Mm-hmm. mature euh, maturité am ñu am am na ñu nekk à la hauteur pour mën a gérer yenn problème yi man mi mhm. je suis très bien placé mhm. ma ma mën a wax mhm. xam nga ay wax yu metti ay wax yu ñaaw mais franchement cent bi ma fa duggee dama dama dama dund lu metti ba nga xam ni sama xol mënatul metti waaw bi ma génnee aussi man ki may roy muy Ousmane Sonko nekk suma idole mm-hmm. donc euh, liñ liñ ko def metti na méttiwaay boo xam ni bi mu génnee dafa am benn lu muy dégager. lu muy dégager waaw man tam ci lool laay xool loolu laay xool mm-hmm. parce que ku opposé wu ba yor réew franchement danga am beneen doxalin booy booy booy taxawee mm-hmm. pour que affaire yi avance te tamit mënuñu s'attarder wu ci di xuloo wala ñuy xeex di mel ni comme yow yaa ngi wutaat loo xam ni amoo ko loo xam ni mi ngi say loxo ba pare mm-hmm. man je préfère ñu ñu ñu dem ci l'essentiel waaw l'essentiel l'utilité d'accord ñu liggéey mais ci ci l'essentiel boobu noonu sax d'ailleurs euh, falu na euh, officiellement euh, moom mooy président juróomeelu président njitu fii ci Sénégal mm-hmm. nga bokk ci Pastef liggéey bi koy xaar bëri na tey du ñàkk am nga nouveau nouvelle wala sax nouveau gouvernement bi nga xamante ni moom lay teg gouvernement bu bees bi moom euh, lan nga yan attente ngay xaar en fait parce que gis nañ Ousmane Sonko premier ministre. Mhm. yan attente ngay xaar ngay xaar si moom. ci nouveau gouvernement bi. ok laaj nga ma question bu ma neex. Mhm. parce que Ousmane Sonko premier ministre moom je pense que pertul kenn. Mhm. parce que dama doon dégg sax ñu naan Ousmane Sonko dafa war a sori yi bàyyi ko mu nekk président da koy gêner man leen non Sénégalais itam des fois man du ma xam lu ñu bëgg. parce que Ousmane Sonko ak Diomaye lañ booleendoo génnee kaso te aussi Diomaye moo nekkoon candidat bi n'est-ce te bi ñu génnee Ousmane Sonko demul tëdd këram daf ko gunge. xàlli yoon won ko sénégalais yi jël yoon ni ko jaaral fii ma jaar fii pour ñu matale région Sénégal yëpp parce que euh, temps bi mayu leen ko woon. Mhm. ñafe ñafe ñafe ñafe ñafe ñafe ñafe ba yàlla def ndam jaarale ko ci Ousmane Sonko ak population sénégalaise ba Diomaye falu. après kooku yow nga ñëw nga ni ko na ko sori da koy gêner fii amul benn dëkk ci àdduna soxlawul ku mel ni Ousmane Sonko sa côté mhm. bu ñu waxee dëgg te yàlla tax parce que man duma ma jaay nit quoi duma ma jaay mhm. nit je mhm. dis les sos telles qu'elles donc euh, Ousmane Sonko bu soree Diomaye moom franchement damay yaakaar ne Sénégal bëgguñu lu baax fii Macky Sall sax bi fi jógee bu sañoon am ku mel ni Ousmane Sonko ci wetam parce que du jaay nit du wax nit lu dul dëgg te alal yóbbuwu ko fenn. la hmm. preuve en bi ñu demee ci bi ñuy Macky Sall yónnee fële pour gis ko ñu négocier ak yooyu ci dëkk bi daf ko wax nañ pousse élection yi bu fekkoon ni dafa bëgg mandarga wala alal wala. pouvoir pouvoir. day pousse élection da koy pousse. Hmm. xoolal intérêt mais dafa jël loolu te parti bi amoon na ñeneen y avait Birame Souleye y avait Guy Marius Sagna y avait Ndiaye. ainsi de suite extra extra. Mhm. mais choisirul ñooñ dafa choisir Diomaye. ah donc bu ñu demee nag ba falu mais pourquoi pas mu koy sori. Ousmane Sonko warul sori Diomaye Ousmane Sonko kañ la war a sori Diomaye bu ñu demee ba Sénégal da ngay toog ba amatul opposé amatul opposant kenn du opposé kenn du opposé wu. Mhm. mi ngi dox. Mhm. ñëpp ngi occupé dox seen seen seen seen occupation mhm. ñëpp ngi doxal seen i mbir. affaire yi di avancé. moment boobu moo nga xam ni gongo. ba moment boobu nag mën na sori jomaay. mën na sori mais moment yi. franchement Ousmane Sonko su bàyyee jomaay dama koy bàyyi. su bàyyee jomaay dama koy bàyyi d'accord xam naa xam naa nag euh, comme ni ma ko wax dañuy njëkkanteeg temps du ñàkk dañuy wax ci cellule bi. Euh, bi nga xamante ni moom nga jiite fële ngeen ci def liggéey bu am solo jàmm gën si kàmbaaw bi Njawar Jaañ bi diggante boobu yëpp. alors euh, gis nañ également xam naa du ñàkk sama réalisateur sànq bu ñu ko doon illustré muy photo yi nga xamante ni euh, yaa ngi nekkoon ci liggéey bi euh, mu mel ne jiitu nga gaa yi ci ci woote bi maanaam dëkk bi set ak yooyu sinon boo amee looy ñaax waa caaro yi ak euh, mouvement bi wala cellule bi lan nga leen di wax waaw pour lu njëkk rek maa ngi remercier sama boy yi sama mhm. boy yi parce que mhm. ñii ngay gis tey ñii ñëpp ay mhm. intellectuel lañ ay étudiant lañ galas mii rek bon médecine lay suivre kële mooy Balla Moussa moom détenu la euh, ñoom ñëpp ay étudiant lañ kii am na son bu sama rakk la kii nii Babacar si la moo nekk noonu parce que lii nii ñun yàgg nañ ko def avant sax set setal di am parce que man sama gox fi ma dëkk sama fief dama ko fonk parce que foofu laa am caaro yi foofu la am parce que foofu kanaal yi ñu fa def euh, dafa laaj entretien. Mm-hmm. te ñi koy def 6 mois ba 6 mois la ñuy ñëw te dafa xaw a yàgg surtout foo xam ni amul tëli suuf la. Mm-hmm. donc loolu il faut ñi dëkk ci gox bi ñooy rayante pour defar ko. Mm-hmm. te Sénégal aussi bu ñu koy defar ku nekk fii nga dëkk commencé foofu mu tuuti mu bari nga commencé di liggéey foofu. ñu daje ci kaw Sénégal jëm kanam. parce maa ngi lancé appel nag à monsieur le maire mi ngi ci liggéey nag. Mhm. monsieur maire Alioune Badara wax dëgg yàlla. Mhm. jàmbaar na ci kaw foofu yëpp. Mhm. maa ngi koy ñaan nag mu eggali ko fii nii. waaw mu eggali ko parce que matul un kilomètre. presque ay 500 mètres wala 300 lay mat. gisoo maire bële day ñëw bu fee di tuur si. te bu fekkoon ne par exemple pavé nañ ko. mën na yem ci canal bi ci ginnaawam. parce que dafa fàttu woon. neuf mois yi mu def fee yëpp. canal parce que boobu jàpp yi bari na booy ragal nañ. Mhm. ñemewuñ ñëwaat di ko defar. léegi bi ma génnee laa lancé waat appel ubbiwaat groupe bi ne leen ñëw leen ñu defaraat parce que li doon def du du tooñ. Mhm. defar suñu gox la. Mhm. pour suñu koñ baax. koñ bi baax waaw. macha allah te man sama koñ baax rek moom ma gën a dugal. moo ma gën a dugal moo ma gën a dugal ci. genre politique. te Pastef pour man du politique. Pastef defar Sénégal la. waa APR rek waaye yëpp mun nañ ñëw bokk ci parce projet bi li muy li li muy dégager. mooy Sénégal baax. Hmm, Sénégal baax ah, parce que ñi ngi wax sax système bi système bi maa ngi dégg sànq rek. Hmm. ñu naan ne ay nitu système bi ñi ngi ci gouvernement bi genre affaire yooyu système bi yaakaar naa du nit quoi. Hmm. du la personne système bi c'est des idées. koo xam ni yow mosoo def ay sàcc si bi nga nekkee Sénégal ba léegi mosoo jël loo moomul. xam nga nekk liggéeykat. nga bokk ci parti bu nekk war nga mën a ñëw bokk ci ci ci ci ci ci euh, projet bi. waaw la preuve en est que Mary Teuw mi ngi nii bokkoon na APR nekkoon na ministre Macky Sall. Mm-hmm. mës naa déglu benn interview d'ailleurs li mu wax bi ko i laajee yow li tax amoo kër ak yenn affaires yeeg yooyu carrément def ko répondre ne ko li nga may fay franchement. mënuma ci am yooyu yëpp te wax dëgg yàlla du ma jël xaalisu askan wi. xam nga loolu c'est à saluer. te si si système bi la nekkoon. ci bi la nekkoon. xam nga y a des yoo xam ni ñu ngi ci système bi man damay lance sax euh, monsieur le président son excellence. Mhm. Diomaye. Mhm. di ko wax même sax ku nekk APR am compétence mën liggéey. Mhm. jub non franchement bu fekkee mën na euh, am na post boo xam ni. Euh, mën na koo jox kooku occupé ko na ko ko jox d'accord xam naa xam naa lippi benn question rek la ñuy daal nga baal ma euh, njëli bi nga takk nii sànq ba léegi maa ngi koy xool njëli bi dafa mel ne photo Ousmane Sonko ci nekk da nga jébbalu wala nu mu demee noonu non pas jébbalu pas Sonko mm. euh, bon du suñ sëriñ mais bon dañ koy roy ci ay jikko yu bëri quoi mm. waaw parce que man sama sëriñ mooy sëñ Cheikh euh, Saliou mooy mm. sama sëriñ sëñ Cheikh Saliou waaw te d'ailleurs. Euh, hymne sëñ Saliou kilifa Ousmane Sonko la sëriñam la. kooku mooy sama sëriñ. kon yéen a bokk oh. wasila la waaw ñoo bokk wasila mais Ousmane lii sama jabar moo ko defar jox. ah bon moom it patriote moo ko defar. sa njaboot moo sa njaboot moo ko defar. moo ko defar sa njaboot day yëngu ci yi quoi. waaw non chaîne am la. ah d'accord moo ko defar mhm. jox ma ko. ah moom moo dem tëggulu ko. waaw ñëw defar jox la ko ndax bëgg bi nga bëgg Ousmane Sonko. Ousmane Sonko mhm. moom aussi nekk ku baax ku may jaajëfal. franchement wax dëgg yàlla bi mu nekkee fi sonnoon na trop. maa ngi mhm. koy ñaanal yàlla li mu bëgg si njabootam. Thiana Diagne Thiana Diagne. madame Diagne. maa ngi koy ñaanal. li nga bëgg sa xol yaa ko xam gërëm naa la bu baax a baax a baax waaw waaw looloo indi chaîne bi. loolu mooy indi chaîne bi eh, bon nga baal ma xam naa ne comme li mu la wax rek temps bi moo ñu xaw a xam naa du mm-hmm. ñàkk boo ci bëggee dolli euh, am ñu ma. def benn appel tamit. Mm-hmm. parce que am na patriote yu ñu jàpp 100 euh, mètres. yu nekk foofu ba léegi yu nekk foofu ba léegi ah te seen dossier li ko téye dafa nekk tribunal dafa nekk mm-hmm. parquet. man loolu daloon na ma parce que euh, bu moment yi di greffier di grève pour ñu àtte la day yomb. Mm-hmm. te sa dossier bu ma jiyee xësee ba nekk tribunal euh, juge yi ñooy mën ñëw décanté ko. Mm-hmm. affaire bi jeex. parce que mm-hmm. kon am na ñu fa des daal ñu am na 14 personnes parce que démb rek def naa visite. ku ci wax docteur Badji euh, ba léegi mi ngi fa ku amal njëriñ askan bi xam nga docteur moom téye ko day xaw a yéeme. dañ ko ji ñoon xaw ma comment il financement terroriste. lañ ko ji ñoon jiñ ko ñu bëri bàyyi Sénégal ñëpp xam nañ ni. loolu mooy loolu bàyyi nañu bëri maa ngi lancé appel. Euh, magistrature bi justice bi ñu jàpp ci loolu teel a bàyyi ñooñu. Mm-hmm. parce que des na quatorze personnes foofu. te franchement bàyyi ñuy bàyyi leen fa nekkul loo xam ni xaw xaw na rafet. Mm-hmm. waaw donc euh, comme monsieur Diomaye li mu woote rek mm-hmm. monsieur le président. son excellence li mu woote. mi ngi woote nee na dafa bëgg a yor Sénégal dans un pays apaisé. ak. Euh, yoon boo xamante naa ku nekk da ciy am wàll daal. non am na discours bu mu def dafa dama dama dama xaw a fàtte liir naa ko dafa wax un un pays. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, euh, sax. Mm-hmm. d'accord maa ngi une justice euh, comment. oh maa ngi maa ngi fàtte. d'accord je perds waaw. une. un démocratie euh, un démocratie renforcée waaw mhm. une justice euh, bu boo ma liiralee kii mhm. bi discours bi maa ngi fàtte d' accord mais dinañ comprendre un peu idée bi en bu ñu ko doon teg si pour l' essentiel pour ñi nga xam ne ñu dégg maanaam yoon boo xamante dafay nekkal pour ñëpp ah, euh, waaw waaw dafa ni par exemple ah. un pays apaisé mm. mm-hmm. que démocratie renforcée mm-hmm. Euh, yoon boo xam ni day tëddee jaaxaanaay jaaxaanaay mhm. loolu lay wax phrase bi mu ko waxee en français la perte waaw léegi loolu ku koy woote rek yow yaa ngi bëgg a nekk ci dëgg yoonu jub daal waaw yoonu jub mhm. waaw lool loolu loolu loolu loolu la woote foofu moo tax euh, bon kon donc kaso yi euh, kuñ fay dugalati nañ ko xool mhm. xoolaat ko xoolaat ko doog ko fa dugal parce que sànq nekk na kaso boo xam ne mun nga fa jaaree yàqu waaw parce que ñoom rek victime lañ ci wàllu prison parce que tëj nañ leen fa xam nañ li xew ah, yaakaar naa loolu dinañ ci euh, bàyyi xel liggéey dinañ ci bàyyi xel mm-hmm. bon di remercier rek aussi suma benn grand bu tudd Balla Diagne mm-hmm. wax yàlla bi ma nekkee fee sonn na ci trop trop trop trop trop mm-hmm. waaw ak euh, Binta Diak ñu koy wax bii bi ak suma benn grand aussi Omar Konté kooku sama papa ko yar ak As Konté di gërëm aussi Matar Fall. Mhm. Euh, Rougi ñoom sama responsabilité lañ ak euh, sama grand nag sama grand sama kilifa Khadim Diagne. Mhm. ak Pape Djibi euh, Soy sama frère bi Omar Diagne. Mhm. waaw di gërëm sama famille bi yëpp quoi parce que taxaw woon nañ ma. te bis boo amee problème moom say mbokk ñu taxawee rek. comme c'est-à-dire waaw di gërëm parce dañ ma doon seet si sax. da ngay ñëw taxaw xam nga ci ci ci visite bi mais da nga leen di won image boo xam ni sax danga leen di dalal. Mhm. te malgré da nga doon dund ay affaire yu metti mhm. waaw ay affaire yu dures. bon mais da leen di. dalal quoi leen di reetaan loo d'ailleurs. Mhm. bon après ñoom seen suñ demee sax dañ naan ñun ñu ngi ñëw fii yow xam nga day dañuy ñëw yow yaa war a am problème mais yow yaa ñuy gën a. kii quoi man leen affaire yi noonu la quoi parce que metti na mais gis naa fi ñu ma gën a metti foofu. waaw te affaire bi Sénégal moo taxoon. Mhm. Euh, jar na ko. parce que gis nga tey ni mu ni mu ni mu demee tey. Sénégal am na démocratie. jeunesse bi wane na boppam sénégalais yi wane nañ seen bopp wane nañ ni lii fi amoon neexu leen. Mhm. parce que premier tour. Mhm. Euh, opposant gagné gagné gagné pouvoir. man mosuma ko gis quoi. ci histoire Sénégal. politique sénégalaise. waaw. merci beaucoup kontaan nañ. waaw maa ngi lay remercier Ouzin. Mhm. parce que yàggoon nga bëgg invitation bi. Mhm. bi ma génnee. Mhm. mais boo génnee rek il faut nga dal tey. xoolaat sa entourage looloo taxoon bon. mu yéex quoi mënuma ko woon accordé maa ngi lay remercier bu baax di gërëm te sans limite. Euh, site la boo xam ni bon franchement mi ngi def liggéey bu mucc ayib. liggéey bu extraordinaire. di leen wax bon continuation et bonne réussite. waaw. te yéen a ngi innové quoi. Mm-hmm. merci beaucoup Abdou Diagne yaay Lippi de son vrai nom Abdou Diagne moom la ñu dalaloon. bi nga xamante ni moom moo yor cellule bu Pastef Njawar Diagne ay ah. euh, nomades yi nekk fële ca commune si Sicap Mbao euh, daanaka sama commune la nekk euh, donc voilà moom <laughs> am na am na tur yu mu fiy tudd sax xam naa bu ma leen xoolan dinaa leen xàmmee parce que su ma jiwul mi ngi tudd Maodo Diop voilà Maodo Diop sama sama. waaye sama sama grand la maa ngi koy ziar bu baax a baax mun nañu faral di dajee salle musculation bu euh, fii di nuyu ñoom wele di ñuy ñëpp ñi nga xamante ñoom yooyu fële ca Télékaro ba ba ci fàllu warga bi wàcc ba testo euh, rompé kii bi nu mu tudd robinet boiro voilà allez allez maa ngi sant Maria Maria Maria benn patriote bu nekk France mhm. sama tànk bi garab yu bëri moom may yónnee moom ma ko yónnee ko maa ngi koy sant au passage sonnoon na trop trop mhm. trop waaw def na lu ne yónnee na alalam yónnee na ay idéem mhm. xam nga ñii day baax nga leen di remercier parce que nit ku la defal lu baax aussi mm-hmm. foog nga ak daam daam mbay mm-hmm. maa ngi koy gërëm di ko sant mm-hmm. franchement pas merci beaucoup waaw voilà di comme ni nga ko waxee di gërëm di gërëm euh, soxna Khadija Khadija Delta Delta compagnie sama jigéen boobu nga xamante ni voilà euh, bi jomaay faloo rek dafa xëy si woon ni ma Ousin ñëwal kër ga mu ñëw mu jox mu benn onze di ko gërëm bu baax a baax euh, merci beaucoup mu nekkoon som laa ci réalisation bi jaajëf